sabbal leen baay barahama jërëjëfe baay war nañu أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه من حمدية للإمام البصيري جانغون نندمو نبي نمتي على محمد صلى الله عليه وسلم moom rek moo jug di xoote jëm ci wéetal yàlla noonu yëpp wan ko gannaaw <coughs> teewul yàlla musal ko dimbale ko ba wooteem yegg fii mu yegg si tey kon kooku yàlla seetaanut ko lor yi nga xam ne moom la ko noonu noonu di lor loolu mënul ñàkk ndax day yëkkati dara jaam waaye bu ko yàlla seetaan noonu ko noonu xew-xew yi ñu jàng balaa jàll musiba am muy continué nag ci xaar gi yàlla xaar yonent bi mu ne waa Abu Jahlin Abu Jahlin isra bu mu gisee xunuqal jamali doq ak gëlëm ga alfaxli day <coughs> bay kuy ilayhi mu ci moom kaan noo dafa mel ni gëlëm googu an xaawam wari xàq dër ba laa wax de Abu Jahlin waa waxtu daaw mu fayloo ko annabi yonent bi daynal iraashi yi borob kajug iraashi yi saata bon na waqad saata ñaaw na bayu jaayam wa shiraawa gënd ga Abu Jahlin tooñkat bu mag la dafa am benn bu bokk ci iraashi ñëw Abu Jahlin jënd ci moom ba mu ko jëndee ne du ko dara bañ koo jox xaqam waa ji dimbandiku ci sangi Quraysh ne nañ ko dimbale ci Abu Jahlin ba sonn kenn mënu koo dimbale bu ñëwee rek gaa yi di ko ñaawal bis ñëw rek benn hever ci heveru Quraysh yi di ko ñaawal naan ko xanaa nga dem ci waa jële hmm. mooy góor gële nga xam ne nii nee naa bi yonent moom mu jëm laa dimbale luñ bëggoon rek mooy boole yonent bi Abu Jahl ndax Abu Jahl ku xiis la ku bon ku ñaaw jikko waa ji ñëw ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa fekk ko mu ngi toog mu wax ko mbiram Abu Jahl tawatal ko ne ko dama dafa jënd ci man ba pare bañ maa fay xaw ma kenn ku ma dimbale wala ku ma xettale ñoom ñoo ne ma ma ñëw ci yow yow yaa may dimbale rek laa wax de ba waxe waxee loolu rek yonentu daal di juk mel ni gaynde gu buur sallallahu alaihi wasallam nakay ne won mu nak mom ñu dem kër Abu Jahl fa gu buntu bi Abu Jahl ne kan la ñu ko Muhammad Abu Jahl dal di genn karam ga nga ko ba ken xam rek la wax de mu ne ko lo bëgg mu ne ko joxal la xam mu ne ko wa dana ko jox dal di dem ci biir rek dal di genn alal ji dal di ko fay. ah fekk nag Quraysh yónni woon nañ ko topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba xam nu muy jëflante Abu Jahlin ba mbir ma jàllee ñu gis Abu Jahlin daal ne ko daal ñu yéemu nañ ci yow xolowaa ji sa digganteeg moom la ci xew démb Abu Jahlin na leen gis naa loo xam ne su ma ko faytoon rek mu lekk ma rek laa wax de maa ngi gis waaw ba yonent bi bunt bi ba ma ubbi maa ngi gis waaw gëlëm gu gudd dégg goo xam ne ni gu gu gu rëy la niroowut ak yi suma ma ko fayitoon mu lekk ma yonente ne kooku jibril la alayhi salaam gërëm googu na lay wax ne moo mel ne xaqdër xaqdër ab daabala gu nekk si suufi siin ak hind dafay naaw comme picc am dox gu gudd comme dox ak gërëm di lekk doomu aadama yi yenn daaba dégg nga ni nga xamee ne xàq bu bëggee lekk dafay tàllal dox ga jëm ci góor gu mu bëgg a lekk noonu la gëlëm gi tàllalee dox ga rek jëm ci abu jahlin mm-hmm. moo tax fay rek yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko waaye nag eh, dégg nga yabuñ ko yab nañ zaahiram waaye baatin na moom kenn ko mm-hmm. bu jëflante yow daal ci zaahiram man nga am loo wax waaye bu jëflante yow ci maqaamaam waxamut fa mm-hmm. nangu rek fa am sallallahu alayhi wa sallam ci zaahir ak baatin nag bu jëflanteeg yow ci zaahiram Muhammad ibnu Abdullahi rek la Muhammad doomi Abdullahi yow it ngay diw doomi diw rekk ngay nit muy nit su boobaa mënal nga ko dara waaye bu jëflante yow ci baatinam sa xol foo nga gëm mënoo ci dara woote bi yàlla noonu la mel nit yàlla bu matee dafay tasaruf ci xol yi kum bëgg kum bëgg nga gëm nga gëm ci maqaamam nag laa wax dégg nga moo tax ba mu bëggee Omar ibn al-Khattab gëm daf ne yàlla dimbali lislaam kenn si ñaari Omar yi rek Omar ñëw ci dara moom Omar ibn al-Khattab ndax yonentu fëgg na péeb yàlla ba tu moom saa yu fëggee péeb péeb ubbil ko waaw waaye ak lottam daal ci jëmmum zaahiram la xam xaw ma dégg ngeen maam déet sallallahu waaye bu jëflanteeg yow ci zaahiram mën nga koo xaañ mën ngaa dem mu bëñ ba ndax Muhammad ibn Abdullahi la yow ngay diw doomi diw waaye bu jëflanteeg yow ci baatinam ne boo jëriñ def nii rek ngay def mënoo ci dara ndax attanoo ko sallallahu alayhi wa nit koo xam ne moom kenn rek mën naa dàq xare xam nga nit comme nit ñi moom kenn rek yonent bi xam na ak saxaaba yi di xare ji ndax bëggal leen teraanga waaye su ko neexoon moom rek mooy génn. kenn du ko topp sallallahu alayhi wa ndax xare badr dégg nga jël na suuf rek daldi di sànni ne shaahatil wujuh shaahatil wujuh kanam yi bon nañ kanam yi bon nañ suuf soosu bu ko yonent bi sànnee amul benn xéeféer lu moy na dugg na sa bakkan ak sa bët yi waaw ak sa gémmiñ gi jax-jaxal la ba xamatoo nooy def ñoom ñëpp ñu daw moom kenn moo dàq xare xam nga ne kooku bu so bu soppandi ko woon ci maqaamaam hmm. kenn mënul jàkkaarloog moom àdduna yëpp mënul ñoo jàkkaarloog moom ndax moo na ëpp doole ndax kàttanam moo dee kàttanu yàlla ba mu sànnee yàlla def na ko sànni woo maa ramayta iz ramayta walaakinna hmm. ba nga sànnee sànni woo sànni ba nga sànnee sànni woo yàlla sànni loolu nag moom dégg nga góor a ko mën a dégg waaye nag jullit ñoom bañ rayee yàlla daf leen falan falam taqtuluhum walakin laa qatalahum yéen rayu leen waaye yàlla rey saxalul leen benn jëf yonent bi yàlla daf koo saxal jëf ba pare wan ko ne ko jëfi yàlla ndax moom mooy xalifa yàlla waaye ku dul yonent bi moom nekkoo sax bay am jëf moo tax yàlla askan leen leen benn jëf daf ne falam taqtuluhum yéen rayu leen walakin laa qatalahum waaye yàlla rey xéeféer yi ñoom amuñ benn jëf yonent nag yàlla daf ne ko maa ramayta sànni woo is ramayta ba nga sànnee saxaral na ko jëf ba pare ne ko jëfi yàlla ndax moom rek mooy xalifa yàlla <clears throat> sallallahu alayhi wa sallam wa qadiyatu abu jahlin histoire abu jahlin hada bi laanawu laa yàlla na yàlla rëbb ko oo moom mooy àndoon nag moom abu jahlin kaana nekk na nekkoon na istara di jënd ibulan ak gëlëm <clears throat> min rajulin irashiin ci góor goo xam ne ci irashi la bokk abu jahlin dafa jëndoon ab gëlëm mu ngi ko jënd ci waajoo xam ne ci irashi la bokk wa maataloo mu yéex ko mu yéex ak moom fi àq yi ci àqam Abu Jahl yéex koo fay àqam wala mu yoxti joxul ko cheyaan dara Abu Jahl joxul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dara fa kaana nekkoon na istansuru di dimbali ko alay ci moom ànda Qurayshin pencam Quraysh waa jaa ngi dem ci pencam Quraysh naan leen dimbal leen ma ci waa ji falam yajid amul man yansuru ku ko dimbali moom lii dana la wan réer gi nga xam ne évri makk yi nekk woon nañ ko صلى الله عليه وسلم رير غمت من لن نكون فلما كان من نكيزات يوم بن بس هو من في ذلك الحال من شبوب لمبر بغا خمي بس نيو نارك واجا نغي ورك قتل حمر كو يستغيث من قتل لو بيم سي نيوم حمر كو قتل فقال مدال والله نيل واجو دي بوك سي اراشي بعد كفار قريش نين كين سي بير قريش يستاذي من نياول بي سي موم دنگا waa xaru mu koy ree dégg nga mu ngi koy ree di ko ñaawal nag ne ko laa yun suufu ko du la mën a manduloo maanaam du la mën a xettali minu ci abu jahlin ila zaaka rajul lu mooy boobu de góor mu junñu yonent bi nag junñi ku ko xeeb wa ashara mu junñu ila rasulillahi jëm ci yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa kaana nekkoon na jaalisan daa ji toog waa doo moom dong taxamun na yonent boobu lu yëngatu moo ko yëngal fa jaa mu dikk arajulu góor gi jëm ci yonent mu daal di tawalloo ñeel ko maa faala la def na ko abu jahlin waa ji ñëw ci yonent bi tawatal ko la Abu Jahlin def wa axbarahu mu xibaar ko annoo ne moom lam yajid amul naasiran aji dimbale wala muxiisan daa ci xëcc jàngalee ci xëcc bi su ko defee rek mu tawatal Abu Jahlin mu tawatal yonent bi mbirum Abu Jahlin nag ne ko xaw kenn ku ma dimbale xaw ma ku ma xettali wa qaala mu daal di wax la woon yonent bi ne ko innahum naka ñoom ashaaru junj nañ ilaa naka ne yow anta alladi yaay waa ji nga xam ne tun sif nii danga ma manduloo minu ci moom faan sif nii manduloo ma minu junj nañ ma ne yaa ma mën a xettali yaa mën a mandu sama diggante ak moom kon xettali ma wax nañ dëgg yonentu rek moo ko mën a xettali bu ko keneen xettali woon it ci yonentu la ko xettalee falammaa qaala ba mu waxee daalika loolu rahimu yàlla na yërëm ko sallallahu alayhi wa sallam dégg nga wala boog rahimu yërëm ko sallallahu alayhi wa ba waa ji waxee loolu rek ko nag yërmande jàpp ko waxaama mu jug musliman daa ji gaaw moom yonente Muhammad sallallahu alayhi wa mu daal di woo ñeel waaji ne ko taala kaay wa mu dem maa ci kër Abu Jahlin fa daqa mu fëgg Abu Jahlin sallallahu mu daal wax Abu Jahlin dégg man kan la ba yonentu fëggee Abu Jahlin ne kan la qaala wax na la woon ñeen ko ne ko muhammadun muhammad la sallallahu alayhi wa sallam ndaw turu rëy neemal ismu ismuhu wa neemal zaatu zaatuhu wa neemal aynu aynuhu wa neemal sifatu wa neemati sifatu sifatu sallallahu alayhi wa sallam lépp moo màgg mooy ko muhammad la fa xaraja mu génn ilay jëm ci moom muntaqan waa ji soppeeku la woon kulóoram abu jahlin génn rek daal di tiit ba yaram bi soppeeku wa qaala mu ne ko maaza lan la fa qaal na mu daal di la wu ñeen ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko anti joxal hada rajulu góor gi xaqahu xaqam yonentu ko fayal waa ji borom xaala mu ne ko naam waaw ko fay léegi du ko yàggal laa yansarifu du du wàññeeku hatta on ci yow lu ma jox ko xaqahu mu ne ko balaa mu fi jógee mu fay ko xam-xam na yonent bi ñemewuñ ko wa kaana nekkoon na naa di quraysin pencam Quraysh mi yanzuruuna ñi ngay xool ilay jëm si moom hina talaa jamono ba mu fenkee dégg nga ah dégg nga oh, oh, dégg nga pencam Quraysh mi mooy mbooloo ma ñu ngi koy gis waaye kañ yónni rek moo leen ko moo leen ko xibaar wa kaana nekkoon al mustaziwu aji eh, ñaawal ja ki waxoon waa ji ne ko demal ci góor gële moo leen xibaar na leen dégg nga yonentu baa ngi jug nag pour di jéem a fay bor ba moo tax ñoom it ñu xoolaan ko wallazi mooy ki nga xam ne axbaroom xibaar na leen bi daalika ci loolu falammaa raahu bañ gisee abu jahlin wala boog falammaa raahu bañ gisee yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam xaama jug na maa waan ak waaja taajaboo yéemu nañ minu ci moom maanaam yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu jugee di dem ci abu jahlin mbooloo maa ngi koy xool ndax waa jëroon ñaawal iraashi bi moo leen wax na rek xebal naa ko ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi jugee rek ñu daal di ko xool la ngir yéemu ci moom waxaaw la ñu wax li rajul ñeel góor minum ci ñoom na ko isaab demal maamu maa nag ñoom ñaar fandur xoolal ma laay xoolal mooy xew baynuma seen diggante ñu wax benn waaye rek ne ko aywa jugal ànd ak Muhammad sallallahu alayhi wa ak iraashi bi ngeen dem xool luy xew seen diggante Abu Jahlin fa kaana nekkoon naa dina daaji teew dégg wala boog fa kaana mu nekk moom waa jooju xaadiran daa waaji ànd ñoom nag fa daqala mu dugg abu jaalin abu jaalin wa xaraja mu génn sariyaan daa ji gaaw waa taa mu jox arajula góor gi jamee maali yi mboolem àllam su man sarafa mu wàññeeku moom waa ji woon sarafa mu wàññeeku moom yonent bi sallallahu alayhi wa daal def lu may dugg rek génne alal ji yëpp daal di fay bor bi tourné iraashi bi tourné falammaa jaahum ba mu leen dikkalee rajulu góor gi wa saaluhu ñu laaj ko na lahum ñee leen naa ko yéen a daq ba mu fëggee ali ci bunt bi ba yonent bi fëggee bunt bi gis naa Abu Jahlin xaraja génn na muntaqian daa ji soppeeku law na kulóoram su ma qaal topp mu wax moom yonent bi law ñeel Abu Jahlin ne ko aati joxal haada góor gi xaqoo àqam qaala wax na lahum ñee leen gis naa ko daqala mu dugg wa xaraja mu génn bi suraatin ci lu gaaw wa antaahu mu jamee maali mboolem wàllam waajiran xoolaan daal musiba la bëggoon a gis ci yonent bi waaye musiba la gis ci Abu Jahlin nee na deful lu may dugg rek gaaw génn fay bor bi moom jéem a mucc fatan jëbu mboolom xoye si mi daal di yéemu nag mooy penc ma falamaa jaa bam dikkee Abu Jahlin Abu Jahlin laanoo rëbb na ko laaw yàlla yàlla na ko yàlla rëbbu ilaa naari Quraysh jëm ci pencam Quraysh mi saaloo laaj nañ ko waxaaroo ñu ne ko woy leka تذكرين يا الله ماذا فعلتنا لم نعرف اليوم تاي أزعجت تلون إلا من محمد إنجل محمد صلى الله عليه وسلم أنا لقاو قال مني مم أبو جار إنه نكم من تبو لما دق بون فجأة الباب تبون تبي ظهر فين نفعلون أبكي من إبليس جرم في داري تكرجي جرم لجل جبريل ديكل كوش ملو جرم نعم. واخبروا مخبار لين am siddatin ci ak tattar azimatin baa ji màgg naalat goo xam ne jot naal faala kuy ma dégg nga wa siddatin ak tattar goo xam ne shaddahu waaw jàqloo na ko tiitloo na ko tatal na ci moom mu gis gërëm gu màgg daal gu xéeme goo xam ne ni gërëm daawut mel ni moom qaala abu jahal wax na lu mu ñeel leen law lam axruj su ma génnutoon laakala nii mu lekk ma wala mu tanaatu su ma bañoon min adaayil maali ci fay alal ji laakala nii mu lekk ma su ma desoon ci néeg bi du ma génn wallaahi gëlëm gi fekk ma fa lekk ma waaye su ma bañoon fay alal ji gi lekk ma dégg nga ah loola waral ma daal fay alal ji faasina mu digal allah yàlla a ci loolu maa yàlla mooy yebal gëlëm googu pour mu ñëw falammaa axbara ba mu falammaa axbira bañ ci gëlëm googu sallallahu alayhi wa sallam qaala wax ne zaalika kooku jibril bi jibril la alayhi yàlla nekk si moom asalaatu xéwal wa salaam ak ko waxee la Abu Jahl wax mu ne kooku jibril la kaanu dafa ne moom anaan xaaw mooy xaq dër. moom gëlëm googu waraan xaaw xaqdër nag boo ko bëggul xam daa batun daar de siin bu nekk suufu siin wala hind ak hind tasiiru dafay naaw lahaa ñeel na ko wanuqun doq tawilun gu gudd ka wanuqil jamali comme doq ak gëlëm tàkkul day lekk laa dami doomu aadama waxeeroo ak lu dul doomu aadama mene dawaa bi ci daaba yi moom dafay lekk nit di lekk daaba in tal da tàllal na ilay jëm moom abu jahlin moom moo na xul faxli doq ak kuye ga nga yuridu daf ci na mu ne gamaayam tëdd comme nu muy tàllaloo na xulaan xaaye doq ak ak ila rajuli jëm ci góor alati bi nga xam ne waa araada na mu na moom xaq dër ak la lekk góor googu xaq dër mi nga xam ne bëgg naa lekk nit nu muy tàllalee doq ki nit kooku noonu la gëlëm gi tàllalee doq gi rek jëm abu jahlin فخرج مجن جن إلى جمشون في مديان دكون سانك من وشمو ما قلوا قلم من شدة الخوف غير ترك رجال أبو جاين دالي جن أنا تكرم نك غير رجال قصد فقدعه فايلوكو النبي ينتبه صلى الله عليه وسلم دين الإراشي برب إراشي برك أم دالي كفاي البيت ببيت بيجاك كن lii war na yàlla sàmm na ak yonentam seetaan ko ndax bu ko seetaanoon kon li lii du mën a am rek laa wax de <clears throat> sallallahu alayhi wa sallam dégg nga wara gis naan Moustapha yonent bi ataawu dikkal na ko bi maa ci la nga xam ne lam yan ju muccut minu ci moom doon wafaa ci lu dul fay an na ku bëri lu muy muccu <clears throat> dégg nga an jaaw ci fataa gi ak shadda jiim gi dégg nga mooy ku bari lu muy mucc rek laa wax de wala nga def na jaaw ci oyofal jim gi bañ koo sadda dégg nga mooy ku bëri lu muy mucc rek laa wax de dégg mooy mooy mucc rek laa wax de an na jaaw googu moo di mucc maanaam an na jaatu an na jaaw mooy ku gëri bëri lu muy mucc an na jaaw nag waaw mooy mucc rek laa wax de su fekkee dangaa def an ni jaaw kasara nun ga wala nga damm ko muy an nu jaaw kooku mooy jamoo naajin naajin mooy aji mucc dégg nga loolu rek lay firi kon nel wara gis na al Mustafa yonent bi moom gis na yonent bi ataawo andil na ko bi maa ci la nga xam ne la meen ju du mucc minu ci moom du lu mooy fay bor ba an na na jaaw ku bëri lu muy mucc wala an mucc sax du mucc ci yonent bi lu mooy fay bor ba wala an nu jaaw wala an ni jaaw way mucc ña duñ mucc mukk lu moo ñu fay bor moobu bor boobu yaani lu ma ci namu dégg fi'lu layin faala def naa layinu kañ la buka zalika kooku alladi li nga xam ne faala def na ko min tadda yu ci sànku gim sànku aqloo xelam wa zahabi di ak dem ak dëgër boppam ba dëgër bopp gi gim gim gim gim demee bopp bi mujj nooy bëgg na nooy fonce waaw su ko defee nag xel ma daal di sànku lu tax mu def loolu li kaw nii ngi nekkam gim nekk moom Abu Jahlin raa gis naan Moustapha yonent bi ataaw andil na ko bilam ren azimi ci mbir mu màgg ma woo mu wal faalu moo di kuy xay su laayoon nga xam ne du ko musal minu ci moom ila woo faalu mooy matal li zalika day na ñeen boobule bor allazi bi nga malik ne arashi ñeel na boobu la arashi de gis na ne yonent bi andil na ko mbir mu màgg muy kuy moomu muy kuy yëpp gëlëm nga xam ne ni fay bor rek mooy tax mu mucc ci xawloo waxam an an an jaaw wala an jaaw an an jaaw wala an nu jaaw mooy jamu naajin jamu naajin la bi firaaji mucc dégg nga hmm. wan naaji yaa mucc isaara nem gis na zalik loolu laa yu sama ko tuddee naa ji naa illaa isa u faalu mooy mu masal bil maali ci alal ja mucc kat sax bu ko yonent bi andi loolu bu fay alal ja du mucc ci loolu wan na jaaw nag bil fati ci fata wan na jaaw mubaalaxatun jotal la fi najaati ci mucc yaa mu ci ne lu muy mucc amaali ci ay jëfam nit ku bëri lu muy mucc ci ay jëfam su gisoon gilam ak yonent gi fay bor ba rek mooy tax mu mucc ku la maaraa saa yu taalu ka tanaka alkaane tawajaat jublu na ilay jëm ci moom axraja génn na ilayha jëm ci alkaane googu amalan jëf yan ju dana mucc bii ci moom mina si jëf jooju dégg nga saahib hadal fi'li borom jëf ji de idaa raa nem na misla ma raa kem nem gis abu jahlin abu jahlin ala annu xamal ne moom laa yon ji du ko muccal min hadil warata ci bile musiba illaa daawul maali lu mooy fay alal fan ja mu muccal nafsoo boppam bi zaalika ci loolu nit ku bëri lu muy mucc mooy kan mooy koo xam ne saa yu gisee alkaane gu nar jëm ci moom mu set jëf jum def rek ba mucc ci ci alkaane googu ku bëri lu mucc kooku bis bu ko gëlëm gii dikkaloon jëf jëm mën def ba mucc ci gëlëm googu mooy fay bor ba rek du dul loo rek mu alko kon Abu Jalin bu sey def ñu bëgg a xamal ne fay bor ba rek moo sësoon bu ko defutoon yàqu rek laa wax de xam nga ne yàlla mi defal lii yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu la buuseere waxee yàlla seetaan ko nga war koo gëm dimbale ne ko ana kàttan gi fan la nekkoon keroog ba nga ne ñu ngi koy génne màkk ana kàttan gi fan la nekkoon keroog ba nga xamee ne ñu ngay diri biraal ci mbeddi màkk yi ana kàttan gi fan la nekkoon keroog bay bay saxaaba mi di génn di dem Habasha kattan gang fa waaye xikmatullaahi lii mooy xikma bi yàlla maanaam mooy namu namu yàlla ci moom ndax lii bu amutoon duñ mën a xàmmee ñi muñ ak ñi muñut duñ mën a xàmme ñu nangul yàlla ak ñu ko nangulul duñ mën a xàmme ñu ñu ñu ñu bëgg ñu attan dékkul dékku ay jafe-jafe si yoonu yàlla ak ñu ko attanut waaye bu bu lii dalutoon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuy xootee si yàlla bu la musiba dalee nga ba ndax dalutoon yonent bi kon foofu musiba dal ko moo si jiitu mboolem duy jaamu yàlla rek si yonent bi lay njëkkee waaye tekkiwul ne yàlla daf koo seetaan mukk yàlla seetaanul ko lii wane na ko doole ji yàlla wan ko loolu wane na ne yàlla ko ak musal gi ko yàlla musal sallallahu alayhi wa sallam mu ne woo moom yonent bi sallallahu alayhi wala xoo moom Abu Jahlin maa mooy nga xam ne maanaam gëlëm googu maa mooy li nga xam ne xadara oo gis na ko min xablu mu njëkkoon woo moom gëlëm gi lay wax woo moom gëlëm googu maa mooy li nga xam ne xadara oo gis na ko min xablu bu njëkkoon ci béytu bi passé laakin li fi ne maa la misli eh, maa yu àddu def ñuy kontu alxataaw njumte ala misli ci ku mel ni yonente mel ni Abu Jahlin béyti boobu nag li mu bëgg a wax mooy lan Buseyri xam na ne histoire bi bu ko nettalee nit dina yéemu naa bu jëlin xeefeer bu mag ba nu mën a gisee am malaaka ñu koy mala am xeefeer mën naa gis ak malaaka ci xeet ak mbugal du du ku dee rek malakul moo mun kar nakir danañ la ñëwal ngir di la laaj taag xeefeer nga waaye kooku laaj ak mbugal la waaye keroog xare badari eh, eh, noonu yàlla gisoon nañ malaaka yi ñu leen ray loolu moom yàgg naa am ab xéeféer yàlla ci moom malaaka mu di ko mbugal mën naa nekk dégg nga bu seeru ne dëgg la abu jaalin jibril la gis waaye gis gim gis jibril du ndam ci moom du teraanga ci moom mu ne ndax abu jaalin nim bañee yonent yàlla muhammad sallallahu mu wa sallam ni mu noonee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu wa sallam du ko nekk lii mukk te du dëgg ndax lii day yokk mbirum yonent bi moo tax mu ne ku mel ni Abu Jaalin duñ ko wax ne ko lu mel nii daf cee juum ba nettali ko mukk la àddina ndax bu ko mënoon nëbbu sax nëbbu ko waaye nag boo xam la doon la rek ndax xam na ne am na gàcce ba pare mu wax leen nag lu tax mu def lii loolu lay wax ne huwa gilem googu maa xadaraaw mooy lam gisoon min la ci baytu bu njëkkoon baytu bu njëkk lañ ci jàngoon noonu la gilem gi la gis laakin li fi ne maa yuwaatu duñ alxataaw juum gu mel nii ala mel ni abu jahlin lii moom du ci juum mukk ba wax ko yónent te du dëgg bu ko waxee rek dëgg la ndax kim kim gën a bañ bu ko seetalee lii dafay dëgg moo tax kaanoo dafa mel ni moom xadara natal na asal bayti bi lépp bayti intiraadu muaaridin critique aji critique dégg dafa mel ne rek daf cee natal ne waaw du ñàkk waaju critique yaqulu muy wax aji critique ji fiasa ci lii ne abu jahlin ne abu jahlin kaana nekkoon na kaafiran daa ji weddi billaahi ci yàlla kaziban daa فكيف يشاهد نكلي سيري هذا المعجز بلا كاوتيف كيف يظهر نكلي فين لو يلكو جبريل جبريل في هذا الثوري بلا جمانو ما ما هو عندك لا خن موم في من من الكفر تي ود يالا والانسان دوما دم الكافر بو ود يالا لا يرى دو غيس مثل هذا لو ملني du ñàkk benn waaye juy ne waaw Abu Jaalin nga xam ne noonu yàlla la naka la mën a seede kawteef gu bari gi naka la Jibril mën a feeñee ñeel ko ànd ak Abu Jaalin kéeféeram ak bokkaaram ak yàlla Moussa Samiri Jibril la ko yar taab kéeféer la gis na Jibril xam ay secret taab kéeféer la. gis gis gi gis jibril ak façon wi sax hmm. moo tax mu tubb si suuf si rek xam na ne façon jibril fu mu dëgg mu dund hmm. mu tudd si suuf si rek defar nag daal di ko fa sotti nag wi commencé dégg nga sab ci mbuu hmm. kooku féer la waaye gis na jibril kon loolu du kimtaan waaw bu ko defee ajaabu mu daal di tontu xanaa al intirade ci biir critique al muqarrar bañ bañ saxal fa alamu laaj dégg nga dégg nga ne woo moom ma qad raaw dégg wala boog fa ajaaba mu tóor ana dana intérêt ci biir critique al muqarrar bañ bañ saxal waaw fa saala tañ laaj ko ne woo moom maa qadaraaw gisul ko wala waqaa tabbuwut aslan ci cosaan li aadin ñeel kenn dégg nga xiina uxbira ko xibaare an zalika ci loolu maanaam keroog ba nga xamee abu jahlin ma ngay nettali mbir moomu loolu kenn mosu gis kon woo googu maa xadraa googu man ngoo firee it waaw ak dàq ci nu mu ko firee moom ne woo gëlëm googu maa xadraa mosu koo gis man xam lu mu njëkkoon moom noonu la ko firee ndax mosu tab bi kon bu ko nettalee dafay dëgg ndax lu mel ni du ci juum nga هو ما ما قدر أو مسكو جيس ولا وقع مسك تاب أصلا تيجو سان لا أدين يل كن هنا أخبر جمنا بنكو خبر عن ذلك تلول بن بن أول وهنا أخبر جمنا بمن خبر عن ذلك تلول لا يعددون كنت الخطأ ونجم تلا مثل كم لمهم بمن وحلو يوم تعالى محمد صلى الله عليه وسلم كن من جابن لي في جوم ndax moom du jum jum gu mel nii leer ndax moom fi xaayatina li nabi ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal mukaabarat ak rëy rëy lu la ko maa shiddati xasad yi ànd ak tatak añaanam wax daawati ak noonoom ku noonoo yonent bi bañ ko ndax dana ko nettali lu mosul gis mukk bu ko nettalee kawteef gii rek nga xam ne mën naa tax ni ñi gëm ko dafay dëgg faaqun xëy na man kaana ku nekk fi haadal wasfi ci bi melo m-m-m, bañ yonent bi nii xëy na ci moom laa yox bira du xibaar bi haaj yi ci kawteef gi ku bañee yonent bi nii ñaareel du ko nangu waxal lu mel nii lenn fi haasi ndax nekk na ci lii al mu'jizatu kawtéef al kubra bu mag li nabi ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fiyaa nekk na si sidqu dan waaw dëgg xooteem sallallahu alayhi wa sallam maa laa ànd ak yàlla taala kawe na bu fiyaa nekk na ci kawtéef gi sharafu rutbati tedd ak darajaam sharafu rutbati rasulillahi tedd ak darajaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ala ali ak si ñooñam wa salamatu lil musal wa idlaali rutbati eh, dafay toroxal darajaay abu jahlin moom kawtéef gi huwa moom abu darajatin wa nitaatiha dafay sippi darajaam laa sekk amul benn sikk ne an na naa sida naa jaay ñaan laa yuridu du na mu azali wala yarda du gërëm bii ci moom li xam du ñeel noonam ku ñaan du nettali noonam lu mel nii loo xam ne day yëkkati darajaay noonam di wàccee darajaam moom loolu du ko def wen waxaa nem xew na sàkkata moo def koy nëbbu dégg nga faax bara mu daal di xibaar moom Abu Jahal nag hmm. bii ci yàlla ci yonent bi ala hasil umur yi hmm. ci yéen mbir hmm. xibaar xibaar gëm xibaar bii ci loolu dal la tegtal naa laa noone moom waa xuna ji tàbbil xaqan ci dëgg-dëgg is ngir laay taataa loo ñeel ko alkasi bu fen fi misli hada ci lu mel nii wax gi Abu Jahal gi looloo wane ne dëgg la dégg nga gi moom mosul ko gis te it kenn mosul koo am musu xew ci digganteem ak kenn digganteem ak yonantu la njëkk a xew su su ko nettalee rek te muy yëkkati mbiram yonant bi di fay mbiram dafay dëgg rek laa wax de loo kon woo moom maa xadraaw gisul ko min xablu bu njëkkoo man nga koo firee noonu dégg nga loolu ci diggante Abu Jahlin ak yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kaateef gu mel nii naka la koy nit di gisee ci nit tëgg mun ko rek laa lool wane na la yàlla rek mooy mooy may nit ak gëm yàlla ñu yàlla gëm loo yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nag wax naa dem mu ne mission am du taxaw dafay continuer di dox rek fexe leen ba su ngeen gisee wala yàlla buy liggéey yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen gëm ko laa wax yonent bi nag mission am ci jamono ji mooy dindi fi bokkaale bi gën a ndaw maa ngi koy wax rek ndax yërëm leen rek wax de waaw amul ma benn njëriñ te nit ñi dañ dañ ci bokkaale moo ñu yàlla tànn waaye yow dama bëgg yàlla nga bokk ci ñu yàlla tànn loolu rek la sallallahu alayhi wa bokkaale ñetti bokkaale la alquran jàngal nañu bokkaale bu mag bi amul benn jullit bu ko réere mooy jaamu lu dul yàlla bokkaale bu ndaw bi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa jàngal na ko ne yaakum shirk asgar moytu leen bokkaale bu ndaw ñu ne ko yaa rasulallahi wa ma shirkul asgar lan mooy bokkaale bu ndaw xaala mu ne ar yaaw ngi sël maanaam wane wa ci jaamu yàlla loolu mooy bokkaale bu ndaw bi bu nëbbu bi nag ku koy gis lu yàlla yonentu jàngal na ko ci hadis waaye daf koo nëbbu hadis yoo xam ne ba mm, albaani mi nga xam ne nii mooy njiitu gars yi sax wéeral wéeral na hadis yooyu ndax mënuñ ci dara sallallahu alayhi wa sallam nettal nañ jëlee ci abu musa al ashari mu ne yonent bi daf leen xutba ne yéen nit ñi leen bokkaale ndax bokkaale moo gën a nëbbu ci xeet wi jukkat ak xorondang melentaan buy dem nim nëbboo nga xam ne kenn mënu koo gis mu ne leen bokkaale gën a nëbbu sama xeet loolu benn waa ne ko nan lañ koy moytoo te moo gën a nëbbu jukkat ak xorondang يونسنا وخلنا اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه خمنا وقتهم جزوغوت بوين ديغي حديث بلا خمنا وقتهم جزوغوت من يين موم وخلنا يالا ني موسو سي ياو ني لي بوكار لوني خم لاني خمون نك نون لاكاي جيغلو ورا لا لين وخ ñaareel su waxaan yu mel nii bu ko saxaaba yi laajee daf leen leeralal mbir mu ba leer nañ waaye fii moom daf ne lu ngeen xamut daal wax leen yàlla ñu ngi lay jégglu lañ xamut waaye lañ xam moom ñu ngi lay muslu ñu la ci bokkaale jëlee nañ xadis boobu ci maqel bin yasaar mu ne an nag aboubacar sadiq yonente ne aboubacar bokkaale moo gën a nëbbu ci yéen ci melentaan buy jukkat aboubacar ne ko man ma foogoon ne bokkaale mooy nga wutal yàlla beneen yàlla rek di jaamu keneen yoon su ko maa ngi gën ci ki nga xam ne ni sama bakkan mu ngi ci loxoom bokkaale moo gën a nëbbu melentaan buy jukkal rek laa wax de ma nax la tegtal loo xam ne ni boo ko waxee rek yow moom bokkaale bu bu bu bu ndaw beek bu bu bu mag bi yëpp daal di dañ ci yow waxal naa laa may ni a'uudu bika an ushrika bika wa ana alamu wa astaghfiruka lima la alamu waxal na yàlla maa ngi muslu di la loo xam ne ni xam naa ko waaye lu ma xamul maa ngi la koy jégalu ko ñoom xam nga ne jéggal moom jéggal la rek waaye am na lu fa waaye nag boo ko waxee yàlla jéggal la bokkaale ba nga xamul nag ndax dafa ndaw bopp moo tax jëlee nañ ko ci Ibn Abbas mu ne yonent bi nee bokkaale ci sama xeet moo gën a nëbbu melentaan bu ñuul buy dukkat ci doj wu ñuul ci guddi gu lëndëm loolu la yonent wax foofu melentaan bu ñuul buy dox ci doj wu ñuul ci biir guddi gu lëndëm ku ko mën a gis noonu la bokkaali na boo ci xeet yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñetti hadis yi yëpp albaani wéral na ko ben wu nekk nag laa wax bi ma njëkk wax neena hadith hasan la ñaaral bi neena hadith bu wér la ñetteel bi neena hadith bu wér la bokkaale gogu nak moy gis lu dul yàlla alquran a koy jàngale alquran ak mboolem xadis yi dañuy wax ne laa sharika lak yàlla laa sharika dir xet ak bokkaale lak dira ñeel dellu ci arab alquran arab la laa googu laa naa fee dafay dàq mboolem xeeti lu mu dugg rek laa wax de boo ne laa rajula fi daari mu amul benn góor gu nekk ci kër gi benn soo demee fekk fa góor rek li nga wax waxee yàlla nag ne ko laa sharika dit bu xeet ak bokkaale lakk di la ñeel mooy amul benn benn façon bokkaale bu ñu ko mën a bokkaale ñu bëri nag fañ xam mooy laa sharika lak mooy kenn du bokkaale ci ci ci jaamu gi. ñun moom bu ñuy sujjóot yow rek bu ñuy julli yow yaay tax waaye duñ la bokkaale ci jaamu gi amaa jublu gi moom dana la ci bokkaale ndax danañ jublu keneen ku dul yow am ñu romb ñoom laa sharika dem nañ ba ci duñ jublu kenn lu mooy yow maanaam buñ jëfee yow yaay tax ñuy jëf buñ waxee yaay tax ñuy wax buñ lu ñuy def yaay tax ñuy def ku ñooñu ñoom duñ gisal waaye nag ñooñu foofu la ñu waaye ñu ngi koy bokkaale ci xam nga ne ko waaye nag yaa ngi fi nag ñu fi nag nekk gi moom ñoo ko bokk xam gi moom ñoo ko bokk sa dégg gi ñoo ko bokk sa gis gi ñoo ko bokk di leen di leen wutile nañ nag waaye xam nga gis xam nañ gis waaye mu xaqiqoon yi ñoom buñ ne laa sharika lak lay baat bi firi rek ñoom loolu lay firi ci ñoom moo yàlla ñun duñ jaamu keneen ku yow te jubluwuñ si suñuy jaamu lenn lu dul yow du am jaamu gu ñuy jaamu jublu ci keneen ku dul yow waaye ñun gisuñ sax ak xam lu sax sa xam gi bu yaa ngi fi yàlla ngi fi rek bokkaale nga ko ci am gi laa wax muhaqiquuna yi nag ñoom ñetti bokkaale yooyu yëpp dindi nañ ko bokkaale gu mujj gi nag moom la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam junju ne moo gën a màgg mboolem xeetu bokkaale yi dàq na ko nag moom mooy ki ko njëkk daq dàq ndax wax na ne laa chey baadahu dara amul gannaaw yàlla moom moom dàq na eh, xam ak lenn gannaaw xam yàlla gi dégg nga waaye foofu du jamono moo tax daf na leen ba ngeen xamut jéegul leen ko yàlla rek laa wax de ah yow nag boo ñëwee ba ci jamono joo xam ne nag xam nga bokkaale googu leer na nañ ñi firil la hadis boobu waaw su ko defee eh, kooku nag waaw loolay loolay loolay fayda su ko defee nag jéemal a génn ci bokkaale googu moom la alquran di wax ne wa yaxluqu dana mu bind maa laa ta'lamuuna la ngeen xamut. li ngeen xamul nii dana leen bindil lu leen ko xamal sallallahu alayhi wa sallam bokkaale googu moom gaa yi xamuñ ko moo tax yoona def na leen jéggul ko yàlla rek ah, yàlla indi na waaw lu xamle bokkaale boobu waaw su ko defee nag nañ ci jëm a génn hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafa am lu jàngale dul sàmba wax wala demba wax rek wala yi bu nekk am na am na dégg-dégg ci wax yonent bi ak alquran moo tax bu yonent waxaan hadis ba pare daf naan jottali leen rek yéen ndax bëri na kuñ jottali hadis bi mu dégg ci loo xam ne nii ka dégg hadis bi ci man déggul ko ca ana fan lañ jëlee ne moom hadis moom firim diw rek jeex na fu ñu ko jëlee yonentu moom xam na ne xeetam xam na ñoo xam ne ci yàlla la ñuy jëlee xam-xam direct ñooñu kenn mënu leen firil waxam yàlla leen koy firil moo tax daf naan jottali leen rek yéen sama wax bëri na koo xam ne dañ koo jottali wax mu ëpp ci dégg-dégg ka ko dégg kan moo mën a dégg wax ji ci yonent bi ku dul saxaaba rek ko mën a dégg yonent nag nee na na kuñ jottali wax moo ëpp ci dégg ka ko dégg ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon jottali leen yàlla na yàlla may dégg in uridu al-islaha ma ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu jërëjëfe baay war nañu